dafa indi yàqu-yàqu foofu ma ba may tàggoog moom nag gunge see na ma ba aéroport mu ni ma nag ma gërëmal sa jeune frère Serigne Pape Malick te nga gërëmal ma Maodo Sylla grand timon de Dakar parce que dégg naa ñoom ñaar ñoo jëli woon cardinal ba te dëgg la ndax ba ñu koy jëli ñoom ñaar jaar si nañ ci man moo tax lu ne yàkk nañ leen ko ci ba Malick bii ak Maodo Sylla bi lu ne yàkk nañ leen ko ci dem ba ñu dem ca teeru cardinal ba waaye tey ñi leen ko yàkk ñuy xëccoo cardinaux yi seetal loolu moo tax nit ñi kenn xamul seen affaire ñoom daal lool leen njëkk def rek moo tax sëñ Babacar daan ma wax ni doom ku mënula toppandoo dafay jëkke ku mënula toppandoo dafay jëkke maa ngi fàttali bi ma nekkee ci daara ji ma dem jënd téléphone defoon naa loolu garaawul ndeke dafa garaaw ma dem wuti téléphone rek def ko sama chambre à coucher ndekke garaaw na ba mag ñépp def réunion te dañuy saisir Serigne Babacar Sy pour wax ko ni Cheikh chambre am téléphone am rek ñu wax ma ko ma bàyyi ba ñu daje pour dem seeti ko ma ñëw jàpp ci loxo sëñ Babacar Sy ñu ko kaay wuyu téléphone gouverneur lay woo mu romb leen fa ñëw wuyu téléphone ci sama chambre ba mu génnee ña waroon a dem pour boole ji ma ni ko doon doon ñaan lu si yàlla rek tàllal seen loxo mu ñaanal leen ñu dem seen yoon seetal loolu ma jóge ci jënd voiture boobu maa ngi amee sama àlluwa ma jënd voiture marque anglaise ñu dajande ko coow li guddeeg bëccëg jënd na oto dugg na fii jënd na oto dugg na fii nañ dem bi yoon wax ko góor gi moo gën bu ñu ko négligé nangam nangam ñu ñëw wax ma ko ni ma nee ñu góor gi dafay dem tool ya te dañuy bàyyi ba mu ñëw tànn nañu juróom-ñaar ci mag ñi pour ñu wax ko ni ko danga jënd voiture ma ne aha ñu waaw waaye nee ñu dañuy bàyyi nag ba mu dem tool ya ba ñëw góor gi génn oto ba mu daan <clears throat> oto mairie ba mu daan dugg gisu ko sama oto la fa fekk sama oto la fa fekk <clears throat> ni oto bii nag ma ni ko sama oto la duggal mu dugg ma kondir ko ba ca tool ya mu ni ma waa ji li yëppoon naa ñàkk def kat pour wax la ni looy def rek nang ca jiital pas-pas ak gëm yàlla loolu rek mooy li nga xam ne moo ci nekk su ko defee tabarkal la ñuy ñaan rekk yàlla dinu taxawu ñuy ñaan rekk itam li ñuy tudde mettre en frein sur la langue mu dinu yomb di ñaan itam rekk yàlla di nangu sunu ñaan di ñaan itam ñi nga xam ni ñooy kilifa diine yi di yokk seen yitte ndax itam danga ciy am njaboot yoo xam ni suñu la ëppee yitte rekk àdduna tukki loolu rekk mooy li nga xam ni moo ci nekk ñu ni woon nag dañuy ñëw waxtaan ak yéen guddi gi xat na wante yonent bi xatul guddi gi xat na wante yonent bi xatul guddi gi xat na wante yonent bi su ko defee rekk nu bàyyi sunu xel ci lépp te wàññi coow li wàññi wax ji xëy na campagne moom bu jotee fokk nit ñi soow waaye ci kaw mu jot ci kaw mu jot campagne juróom benn weer ëpp na ca ñetti weer rekk doy na ca waaye campagne ñëwagul ngay soow di soow di soow di soow di soow loolu kenn xamul lan la nañu bàyyi ba campagne jot ñu soowal campagne te def ko honnêtement kooku moo gën te itam légitimité lu am solo légitimité lu am solo la te li ko maye sago moo ko may honnêteté moo ko may yitte moo ko may su ko defee ñu bàyyi ba campagne jot ñu def campagne moo gën a baax man noonu laa ko gisee kilifa yi fi ne ku ne yónni nga ma ci nit ma xam li nga ma yónni lan la wante mbedd mi jotu ci ndax dafa teel mbedd mi jotu ci ndax dafa teel campagne daal ñetti weer doy na ci sëkk bu baree ba bare ba bare juróom benn weer doy na ci sëkk li ci des daal amul tur di soow rekk parce que doo def dara di soow rekk parce que mënuloo téye sa gémmiñ kooku baaxul waxuma la di ko def ci façon boo xam ni dafay ñaaw am nit ko amul mesure dafay gaaw a sartàkk te kooku baaxul man daal noonu laa gisee situation bi dañ ko dugal nag ci biir mawlidu rasul yonent bi rek la ñu am keneen amul lu ko ëpp te li mu wax ni te lu am solo la yonent bi ku baax la te ku honnête la parce que li mu li mu wax ni dingeen dem ba kàddu tax nature bi gedd leen di dem ci wax ba nature bi gedd leen nee na nature bi ni mu leen di gedde mooy dafay bañ dootul coopéré ak yéen te bu coopéreetul ak yéen lu nekk la mu daan saf dootu ko saf mooy su fekkee bëggkatu xaal nga boo dee lekk xaal dangaa defe ni jombos ngaa lekk parce que dootul saf xaal boo dee lekk pomme da ngay defee ni du pomme de terre ba nga xamoon boo gisee mu commencé rek c'est que nature bi commencé na di bañ seetlu ko rek kañ nga gëj a lekk ñam bi bu neex waxal dëgg rek kañ nga gëj a lekk pomme bu pomme de terre dëgg dëgg am bool bi ah kañ nga gëj a lekk xaal bu neex xaal boo lekk defe ni jombaslu nature bi moo commencé di bañ te yonent bi nee na du deñ lu dul bi Isa ibnu Maryam di wàcc boo gisee texte bi mu def ci wàccu seb ibnu Maryam ci ngay xam ni yonent bi moo honnête parce que boo ko jàngee li ngay jëkk yéene mooy fekke ko ndax ni mu waxe escorte bi ak bu góor gi dee wàcc ñaq bi génne ci jéem di toq ci nature bi mooy dundalaat nature bi ba mu accepter pour coopérer avec la race humaine yonent bee ko wax bu ko defee yépp normalaat waaye bu noppee mission ba yéeg nag yi naqari deret yépp jóg jant bi jóg géej gi jóg

comme pexe amul ku ne la la nga jot rek ngay dunde kooku noonu rek la demee tubaaba ku dul tubaaba ci yem nit ku ñuul ak ku dul nit ku ñuul ci yem araba ku dul araba ci yem ku ne am nga loo yëg loo yëg loo xam ni lii gan la gan la xamuloo ko woon moo tax yonent bi ko honnête la ma su ma gis mukk texte bu rafet ba àgg foofu te def ko yéene ay sëb nu Mariam seetal loolu moo tax rek tabarkalla tabarkalla nu ngi ñaan rek nu fekke ko ndëgë tëwën kenn bañ ko wuti ñu ngi ñaan itam jàngoro moom yàlla ko ëpp doole ku ci am looy metti yàlla fajal la ko te doo ci am coono yàlla nu ko yàlla boole defal te itam li gën a jafe léegi mooy faj soxla waaye ki mu gën a yomb mooy yàlla te ki mu gën a rus mooy yonent bi kon nag ci barke yonent bi yal na yàlla dinu may nuy faj suñu soxla te du am tiis yal na yàlla itam di nangu lu ñu ko jaamu mu nangul nu ko te bañ a seet suñu doyadi xanaa nangul nu ko ci kaw amunu ku dul moom na waaw parce que ki nga amul lu dul moom wax dëgg yàlla sañ nga ni ko awma ku dul yow boo ko defee lum la war a fajal mu fajal la ko yal na nu ci yàlla dimbale te ñu koy ñaan mu intervenir ci kanamu yonent bi pour jottali ko loolu yonent bi itam ñu ngi koy ñaan ci barkeem mu jottali nu yàlla loolu waaw kay kooku loolu rek na demee nu bokk ko dama ni woon ma ñëw rekk barkeelu ndax dama am sama benn doomu ndey la doomu baay la mu demoon seetaani seetaaniwul daf doon participer ci conférence bu Serigne Moustapha doon defal waa Moustarchidine ba mu ca jógee mu ñëw ni ma xam nga nooy defal en tout ah, cas ni ma boo xëyatee jëlal sa kaan bi topp yoon wi doxantu ba ca géej gi nga toog fa waxtu yàlla ba am air bu baax nga dellusi si rek jaaxal bàyyi xale ya ca naaj ak seen ko wante xale yee bëggul loolu ñoom wétal la ñu bëgg tabarkalla tabarkalla kon nag yal na wétal yàgg yal na wétal yàgg ngeen yàgg ko fekke nu yàgg ko fekke te sunu kilifa yi nangul nu lu nu jaamu lu mu doya di doya ñu nangul nu ko yal na nu ko sunu kilifa yi defal fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin loolu moo nu indi woon pour ñu participer ñëwunu woon pour seetaan dañu ñëwoon pour participer participer ci euh, liggéeyu euh, n yi fi nekk participer itam ci liggéeyu sët yi tabarakallahu dama ko fàtte ci kër ga maa ngi amee benn leetar boo xam ni billet dix mille francs nga ci benn xale bu tuuti moo ko indi boole ko kayit kayit ga xam naa dafay soog jàng mbind ndax dafay soog a dugg lekkool daal di def ca kayit ga maam Cheikh vous êtes intérieurement et extérieurement. dal di ma koy joxe rek fa waaw bàyyi ko man ma dindi fekk ci dix mille ma ni muy yéen lii kenn mësu koo gis ci àdduna pour wax la ni cofeel dinañ ko donn wallaay dinañ ko nàmp dinañ ko donn cofeel dinañ ko nàmp dinañ ko donn ndax kenn xamul lu tax mu def loolu am na benn guddi dama agsi rek fekk fa ku toll nii ñu ne ma moom de dafa am lu mu amee bu ñu laajee rek mu bañ ma agsi mu ni maam Cheikh ma ni mu teg ko sama loxo rek fax ndeke passival daal la dafa dégg ni dama soñ seetal loolu moo tax cofeel dañ koy namp cofeel dañ koy donn tabarkalla tabarkalla ñoom ñëpp yal na yàlla màggal leen yàlla barkeel leen ci kanamu wayjur yi ci kanamu maam yi ci kanamu maamaat yi ci kanamu tànte ak bàjjen yi yal ko yàlla def ci tabarkalla ah xam naa dama mel ni mi ngi bëgg a guddi tuuti de ah? moom de xam nga boo màggatee rek màggat nga dara nga ci wanul wallaay ndeysaan yàllaa koy dogal waaye rek di góor góorlu na góorgóorlu bañ a bàyyi di góorgóorlu bañ a bàyyi tabarkalla tabarkalla tabarkalla di góorgóorlu bañ a bàyyi waaye ku la ni man jote naa ak chef politique yi dara xamul histoire réew mi xamul histoire réew mi ku ci la nga ma mujj wax rekk laa jàpp ku ci ne la nga ma mujj wax rekk laa jàpp dama ñëw ci Senghor mu ni ma dama invité au fouet ñetti yoon bu waxtu wa jub mu gàntal ko waaye ñu wax ma ni seetkat yee ko tere te loolu xaw ma na muy mën nekk ñu ne seetkat yee ko ko tere te man xaw ma loolu nu mu mën nekk ma ni ko ah man de damay voyage te dinaa jaar Abidjan te maa nga jëm Beyrouth danaa ci xam dara wàcc Abidjan gis au feu mu ni wallaay mu ni ma kenn jabaruma kenn jabaruma dafa fekk tubaab yi fi mu ne pour chef d'état africain yi nekk benn dafa leen di tiis te dafa am nuñ ko bëgg doxale pour tas ko te ni ñu koy doxale mooy dañu bëgg Senghor nekk sunu tubaab nun ñëpp nuy neegar te boobu nag dafay diis ci nun bu ko Senghor xamee ba xam ko nag njariñ lay doon waaye kan moo ko koy wax ma ko man maa ko koy wax parce que mën naa ko ko wax te du ñaaw mu ni ma waaw kay ba bu ma yàllaate ma dem ba wàññeeku ma dem Beyrouth yàgg naa fa sax ndax dama fa am ñetti invitation moo tax ma yàgg fa presse bi yépp wax nañ ko sama séjour boobu séjour bu amul morom bi ma dellusee ma jaaraat Abidjan tàggoo fooy fekk ci suba laa fa dem ñu defaral ma kafe mu ni ma foog nga xaaraañ ma ni ko looy toggaañ mu ni ma ceebi jën ko yéen mënu leen ceebi jën mu ni ma mais sama jarbaat sénégalaise la moom rek la man ba fa mu jaayi ma wax ko la ma xam na mu war a comporter bi ma ñëwee fekk alxames la ma dem ca Senghor ni ko jëlal téléphone bi nga woo Houphouët nga ni ko daa fa ñëw ëllëg ci àjjuma ji ci guddi amul protocole amul visite de travail amul lenen l'avion avion bi nga dem vendredi soir reposé ci goudi gi bu de samedi nga yendo ko ngeen wax bu reposer dimanche ñëw nga yendo mom ngeen wax parce téléphone téléphone ca ëllëg sa ni ma dootuma ko bàyyi ni ko voyage officiel baaxul dafa kenn mënu ci doxal lu am te loolu mooy dëgg am na loo xam ni kilifa ak kilifa rek ku mën a dox waaye buñ ci boolee protocole yéeg yu kenn xamul dugg fii génn fii du sotti mu di ca dem di ca dem ci voyage yi ba benn bés nag mu bëgg ëppal ndax mujj na ñaari fan yu ne mu tukki Moustapha Niass mii ñëw seet si ma ni ma nanga nu ci dimbale mu dalal tukki yi nag dëgg dëgg te wax na dëgg wax na dëgg ndax moom itam sama njaboot la yàlla xam na ko keroog ba muy bëgg bàyyi maa ko ni doo ko fi bàyyee mu ne ma parce que Senghor bàyyi na may damay bàyyi ma ni ko dee bokku leen moom mag la mën na bàyyi waaye yow mën nga toog maa ko ko wax Moustapha Cissé di ko Hadj Moustapha Cissé di ko teewe ki ma leen di wax ni bés bu ne mu gis barzax te du te sëriñ te du sëriñ fan yi la may wax ni fas yu ma gis ji Amat Siise bu piir war ko mësuma gis mukk fas bu rafete noonu te ki dem rek la ma koy wax te dëgg biir la yàlla xam na yàlla xam na ko mu ni ma li ma ci jaaxal nag dama ko fekk mu taxaw ak Serigne Cheikh si ci ëllëg sa la sonn Zeynabu dem pour wax la ni barsaxa ngi ña am ñi yàlla jox batu gis ko bés bu ñu gis ko lu fa xew ñu xam léegi yëf yëpp soppé le conservatisme est mort dégg le modernisme est dépassé il y a une autre dimension bu nga xam ni du sen morom ça il faut le dire ku ci tenirul compte nak xanaa nekk fii di bëgg rey nit ñi sama cosaan nangam kii naan man je suis moderne kii naan loolu doxul nañu ko seetaan na ngeen dem ñu former leen ñu former leen pire diggante ruux ak fitra ndax ñii kat formé nañ leen diggante ilma ak mantiq ba kenn mën a tuccee toog te takkuloo lu ne kenn mënatu cee toog taamuloo rajo kenn mënatu cee toog taamuloo télévision kenn mënatu cee toog te dugguloo ci avion bu confortable dem tukki te ñi ñi ko def dañ leen a former fii ma bayna al ilmi wal mantiq kon nag ñi ci desit nañu dem ñu former leen fii ma bayna ruuxi wal fitra bu ko defee nag frontière yëpp dañ lool rek moom moom moo fi nekk waaye caaxaan caaxaan yéeg yi kenn waxu ko waaw waaw la la maam Samba Abdoulaye waxoon borom kawar gu ñuul dañ koy jàngal dëgg-dëgg te bañ ko négligé borom kawar gu weex dañu koy fàttali parce que ci fàttali dëgg mu dellu wax ne boroom kawar gu ñuul dafay génn gént dëgg-dëgg borom kawar gu weex dafay janeer lu mu janeer lool waaye yii ñaar nag bu ñu ko négligé àdduna tukki yii ñaar bu ñu ko négligé àdduna tukki man maa la ko wax kon nag bu nu yebew rek song ko waaye nag koy gis ku la formé ci bay na ruuxi wal fitra ah boobu la jafe-jafe bi nekk boobu la jafe-jafe bi nekk waaye ñu ngi fi nekk ñu ngi fi waaye du ñu sëriñ nag looloo tax ñu jafe gis ñu sëriñ kii bu xëyee dem ca liggéeyam ma nga ca commerce kii bu xëyee ma nga ca entreprise kii bu xëyee ñu ngi fi dem ñu ngi fi deman maa ko wax waaye euh, kër yëpp visité nañ ko visité nañu kër yëpp yëpp xanaa ko amul seetlu de waaye ko am seetlu di nga gis sa objet boo tegoon fenn ñëw fekk ñu déplacé ko man maa la ko wax looloo ngi ci xanaa li góor gi waxoon rek ni ma yaa doon fëgg ma ni ko déedéet du man de mu ne yéen ko niroo baat parce que gan ñi la gan ñi la daje daje naa ñoom ba tey ci lu deme noonu ñu ngi nii di xoole ñu ngi nii di gis yenn yi damuy xuloo xuloo xuloo xuloo booga tas parce que seen ci léegi dafa kër goo dem fekk leen fa kër goo dem fekk leen fa goo dem fekk leen ku leen neex assassiné loolu nag ku ne xam na ni dégg am léegi normalatul ku ne xam na loolu parce que bés bu ne ñu tàggale fukki nit loolu normal loolu normalul bés bu ne ñu déclaré la fukki nit yu feebar loolu normalul waaye ñoom li ñu man ci xeex ñu ngi koy def ba ñi ci desit li ñu man ñu ngi koy def kooku loolu rek la wante it tabarkalla tabarkalla dañuy jaay seen jigéen ñi te fu ñu leen dugal rek ñële ñëw dàq leen loolu rek mooy li nga xam ne moo ci nekk tabarkalla tabarkalla ah te li Seydil Hadj Malick waxoon ni da ngeen watu ndax watu bi mooy tax ngeen set ngeen sell ah, te yonent bi ñetti yoon rekk la ma sa watu waaye terewul li muy sëqal yépp dafa jekk moom ko jekk la tabarkalla defar boppam ba mu baax diw diwa diw ñemewul ñemewul bakaariya yi dama dem dama dem ca aéroport maa nga jëm Paris daje fa ak koo xam ne mësuma ko gis mu nekk sama cousine la papaam dafa dafa fàddu yal na nu yàlla mu seet mu ni ma dangay dem Paris ma ni ko waaw ni soo demee nga may ma perruque ma ni perruque mu waaw perruque perruque yi dañ koy def ci bopp jigéen ña ko ma ni ko yow sa papa sëñ Babacar daan wax ni boo amul woon kilifa gu toll ni Maodo tur yàlla dana ko lekk ba mu jeex ngay jënd lu bëri waaye jëndal ma rek moo ma gënal ma itam rek xam nga ci booba ca laa ma dem chez Caritas di fa wuti bëri parce nga gis loolu do- doomu Babacar Si dem chez Caritas di fa wuti bëri foofu yàlla dajale ma fa ak benn vedette de cinéma boo xam ne dama ko daan tagg ndax ci film yi rek laa ko daan gise elle n'est pas belle mais elle a une présence formidable ça il faut le dire te la présence est dix fois plus importante que la beauté c'est pas la même chose mu joxoñ ma place bi nag ma dugg ñu ni ma ah bu dee bu baax bi dina jafe de ma ne ah yalwaanu taalibe de lu bare mënu ca dugg waaye defar leen rek bu noppee nu waxaale ñu defar ma téléphoné ndax noppi na ñu ni noppi na ma ni kon maa ngi koy jël si ndax damay dem ci ngoon ñu ne ah déedéet duñ la ko jox nun noo koy yóbbul sunu bopp ba ci aéroport dénk ko otes yi ñu muural nu ko ndax acariens yi seetaan loolu pour wax la ni bopp ku ko toppatoowul rekk àdduna tukki wallaay ndeysaan acariens yi dëkk ci biir ngay wokkutu rekk wokkutu rekk loolu mooy li ci nekk ñu ni ma ñaar rekk lañ ci defaragum pour Afrique benn pour Abidjan benn pour Dakar ma ni bu Abidjan bi xam naa ku ko ñu ne ma kana man leen diw dañu mujj waaru man leen Babacar si fu ne la am taalib tabarkalla kon nag ndénkaane bàngoo ngoog nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm <laughs> am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm <laughs> te itam campagne yi ngeen wàññi ko ba mu jegeñ si bopp ndax itam daal caalit yi bare na ah waaye fekk na moo mënu ko tabarkalla tabarkalla ku ci nekk ci chef yi fi jaar am na bés nga rendre ma ci loolu laa jàpp ba léegi bu dee Senghor xeex nanu ba tey waaye ba xeex ba jeexee rendre na ma hommage wax dëgg yàlla ba am ñu ko mere sax bu dee Abdou Diouf la même chose xeex nanu waaye mujj na ma rendre hommage tabarkalla tabarkalla ah bu dee Ablaye Wade réunion yi ko mës a yitteel yépp sama kër na ko daan def sama kër la ko daan defe te rëyluwul parce que daan na jàppante xale yi ba man maa ko yaate yàlla xam na ko waaye loolu yépp nag dafa am lu ko doo ëpp doole mooy peuple bi peuple bi nag ñoo moom réew mi wax leen ko comme ñoo moom réew mi nag ñoom itam nañu xam seen bopp te xam lu ñu bëgg loolu mooy dëgg yàlla dinu taxawu ci biir dinu taxawu ci bit le peuple bi xam ni ñoom moom réew mi bañ a teele seen campagne bi parce que désordre rek la indi tabarkalla tabarkalla li ci des yàlla rek a xam li ci des nag yàlla rek a xam yonent bi dañ ko ni ku dof mu ni ko xam ni foo ko fekk mu mer ñu ni ko ak kan mu ni ko mer mukk te looloo am nit moom du ñàkk bés am lu ko naxati waaye dëkk ca baaxul dëkk ca baaxul kon nag campagne bi ngeen bàyyi ko ba mu jot ngeen doxal ko ci yoon ngeen bàyyi ko ba mu jot ngeen doxal ko ci yoon kenn ku ne sañ na ni diw mooy sama mbër waaye nag itam tël tël tël saaga tël tël tël saaga tël tël tël saaga boobu daal mat na bàyyi parce que baaxul baaxul mukk baaxul mukk te itam Cheikh Tijani bu dee suñu mbokk yëpp ñi nekk fii ñi nekk biti ñëpp a ci yem sëñ Babacar dafa ni ku am kilifa doo gàgganti ko ci mbedd nee na ku am kilifa doo gàgganti ko ci benn hmm. il faut mu <coughs> lu ne bala nga caa dugg mu leer nañ bu leeree nañ rek dafa baax waaye loo jot rek dugg loo jot rek dugg loolu baaxul xam naa yàlla rek nag ñi mu am fii ci senegal ci seen barke yal na defar réew mi yal na ko defar ñëpp ñëpp am jàmm tabarkàlla ñëpp am lu ñu dunde ñëpp am lu ñu sol ñëpp am lu ñu fajoo tabarkàlla lool rek lañ koy ñaan am na lu ko ëpp am na lu ko ëpp moom it nanu ko may moo gën moo gën de mu di ñu seetaan noonu nag kooku baaxul moom dal bu mu ko def mu ko dañuy may rek di nu may rek di nu may rek su ko defee nag ah ci gàmmu lanu ne waaye ci liggéey la ñu jëm maa ngi ci doon wax ak Serigne Moustapha léeg-léeg su ma amee jotam ma dem Ndar léeg-léeg su ma amee jotam ma dem Bambey léeg-léeg su ma ma dem Kaolack dama ndax dama ko daan def te amoon na njëriñ bu ko defee rek hmm, nu bokk ko rek nu bokk tabarkalla tabarkalla ndax tamit rek noonu rek la mën a demee tabarkal la tabarkal la waaye ngeen bàyyi xel ci ne am ngeen gan yu soxor am ngeen gan yu soxor gan yu soxor na waaye am ngeen it gan yu baax yu leen mën a difi yàlla xam na ko rek mooy li ci nekk bu mel na kon ngeen continuer seen woy ma roccee ko ndànk rekk daw waaw ah. sunu mbokkum bopp bi tabarkalla tabarkalla sëriñ Alioune Mbacké dëgg la nit sax mën nga ko jur te du tee mu nekk sa xarit te itam ndimbal la itam ndimbal la ndax lu mu yëg ni loolu baax na dina nu ko teel a wax moo tax nu di ko yóbbante rek ca góor gu baax ga pour mu xam ni njabootam yi mu ngi koy bàyyi xel te di ko ñaanal te xam ni njaboot yi itam tabarkal la ñoom ñëpp. dañuy soxla ku leen protéger ci biir ak ci biti te loolu ndénkaane lañu ci am te yàgg na ndénkaane lañ ci am te yàgg na ndax président Lamine Gueye def ma ni ñaari nit dañ ma jaaxal ci àdduna sa maam Cheikh Anta ak sa maam Mamoun Dari mu ni ma samaam Cheikh Anta naka la yëg ni tubaab yaa ngi fexe këyitu secret yépp mu rawale ko yóbbu ko ca anglais moo ma ko wax de ni ma sama maamu ndëri bu mu yëgee ni tubaab yaa ngi koy fexeel mu jël njabootam yépp yebal ca anglais mu ni ma looloo tax tey Amadou Lamine Ba mën a nekk imam ratib bu Gàmbi bi ni ma looloo ko sabab looloo ko sabab Amadou Lamine Ba mujj na gouvernement Angleterre bu dee yónnee sax boole ko ci te te surtout maamu ndari la seetal loolu pour xam mag ñi xam nañu li ñuy def te maam Cheikh it noonu la def Serigne Abdoul Ahad nee ma mësuma gis mukk leetar bi sëñ Babacar bindu tubaab yi pour mënaase leen ndax sa maam Cheikh Anta nee ma naa la ci yónnee koppi nga gis ko ndax maa ngi ko amee te noonu la nag noonu la parce que ñoo bokk lépp tabarkàlla yenn yàlla defar yépp na yàlla defar yépp yi ci des yëfi caaxaan caaxaan rek la na yàlla defar yépp donc rek lañ ciy ñaan waaye campagne bi ñu bàyyi ba ca kanam du dëgg parce que nit ñi dañoo bari soxla te ñu ngi ci seeni liggéey waaye bëgg tàmbali léegi campagne jëmee ko ñaari at kooku dana metti de dana metti trois mois doy na ci walla bu bare ba bare six mois doy na ci sëkk man maa la ko doy na ci sëkk tabarkalla tabarkalla ko defee nag mustarchidin mustachidaat sama sëti bopp yi ñoom maam Cheikh rek la ñu xam wallaay ndeysaan maam Cheikh maam Cheikh maam Cheikh tabarkalla léeg ma jot enveloppe ñu may ma xaalis léeg-léeg ma jot enveloppe ñu may ma kurus léeg-léeg ma jot enveloppe ñu may ma jaaru ma ne ah sama sët yi yal nañu gudd fan wallaay ndeysaan yal na yàlla taxawu leen tabarkalla tabarkalla loolu neex na ci xol lool ba moom am na ci ku ma yónnee kurus waaye fekk gan yi ma leen di wax kenn ñëw fa naka laa wékk kurus gi rek nettali naa leen ko de naka laa ne euh, wékk kurus gi rek ñu commencé di agir sur les perles wallahi l'azim ma gis perles yi di indi histoire ma ne ah tax yil la waaw leen tax yil la du dëgg يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى آه. بس نجس بير يولي بغا جمال جنيك أي بير بير يقرس من لين بير يبوشي ويسخ تخيل ركلة تخيل ركلة موتا دي لين باي خيل باهنا باي خيل باهنا لو تك متك لو تك متك لو تك متك nu yàlla wësal yal na yàlla wësal gan ak bari nañ fi lool xaw ma daal li ñu gis ci réew mi jar na waa réew mi wattu seen bopp xaw ma lu ñu fi gis nag jóge ca ministère yi jóge ca service yi jóge ca daara yi fa ne ñu nga fa wax naa leen nit doomu góor gi yaama njaay fa ñu ko jaar bu dul woon ak sëñ kenn dootu ko gis kenn dootu ko gis kenn dootu ko gis gis nga laaj Abdu Kan loo tax laaj Abdu Kan ku fonkoon ayatul kursi la ku ko fonkoon la ku ko fonkoon la moom nee gisul ku ko saxoo ba dara man ci yow dara daf ko daan wax koor sax ñaari rakk la daan naafila ne xaw ma jëf ju rëy jëf ju yàlla nangu la xam koor bu naafila ñaari rakk yeewi ñëpp yeewi gan ñëpp te gan ñi kat alaaji Amadou Deme ngi alaaji Taala Loo ngi Seen ngi ci ganam ñi lañu bokk ci koor bi alaaji Abdou rek la fonkoon ci àdduna moom la jëloon taf ci dënnam àggoon na ci bu Alaaji Abdu nekkee këram dootul sol dàll ba Alaaji Abdu ni ko dootuma fi ñëw feek doo sol dàll dootuma fi ñëw looloo tax mu muñu di sol dàll xaritam la woon lool bu mu ma faf ko yokk ndax fa la daan nekk mu di ma jàngal yàlla ya xam ya na ko yàlla xam na ko kon nag affaire bango ak sama affaire kenn bi ak sama américaine bi <laughs> kon nag ñu jàng fatiha teg ci ñetti salaatul fatiha ñaan ci dara ji yonent bi moom rekk a nu dese yàlla taxawu nu tëbb nu leer te may nu nu suturloo dana ko yàlla def Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم معنا ولف فواحني كو أم جن دنجي يوكو رير فتبارك الله نعم أي جن يجوغي إيجبت إيجبت mën naa am dégguñu sunu làkk boole ceeg résumé li fi sunu kilifa wax biig ci façon bu simple biñ ko mën déggé lolo tax inna xayaata rasul كانت حياة بشر تعاون على تكوين بشريته الأرض والسماء